am ñoo ëmb li am bu fekkoon temps amut espace amut dara du am waaye nag ñoom ñoo ko ëmb gannaaw ñeg ñoom dañ koo ëmb bon su fekkoon ne yàlla am na fu mu nekk bon tamit temps ëmb ko jamono ëmb ko te bu boobaa dootul yàlla ndax lii ëmb lii ëmb mbindeefam yi ëmb na ko lii dogal ci mbindeefam yi dogal dogalal nañ ko ko bon loolu du mën a am de bon yàlla fu mu nekkoon njëkk jamono yàlla fu mu nekkoon njëkk lii am loolu laajte laajte laajte dof la wala laajte yéej jikat yi nga xam ne dañuy yéej ji rek lay comme lay gi yeeg lay gi yeeg ate yi nga xam ne ñoom laajteer laajteer rek ngir dugal ci xol yi nit ñi sikki sakka ak yéexal jaaxal seen xol yi rek lañuy la lañ fi nekk xeet la ci kéefër goo xam ne kéefër gu kéefër xeet la ci kéefër boo xam ne kenn mënu ta wax ne kéefër gu mat sëkk la waaye nag kéefër ñeenti xaaj la am na kéefër yakfuruna bi yakfuruna ni'matallahi am na yoo xam ne dañuy weddi kéewali yàlla am na yoo xam ne yàlla wax na leen dem leen aji màkka bu ngeen amee ñu bañ ñooñu itam yàlla dina leen wax ne kafaru de weddi nañ weddi màkka waaye taxul ñu doon yéefar de bon nag yéefar mën naa nekk laïcité yeeg athée yi ñoom dañoo dañoo ñoom dañuy bànneexoo sax ku leen wax ne yow yéefar nga waaye nag ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñoo nekk ci yàlla ñoo gën a ëpp lay boo xam ne moo gën a dëgër lu lu nekk ndax jamono am na xew-xew jamono am na barab am na xew-xew am na su jamono amut barab amut dara du xew ndax dara nekku fa luy xew de bon nag ci jamono ci lu ñuy mën a nattee di am ci mën a ñuy mën a nattee di am borom jamono ki nga xam ne nag moo bindu jamono amal ko boo ko bëggee natt ci jamono nooy def doo xam noo koy nattee de bon kenn du xalaat fu yàlla nekkoon ak lu yàlla meloon loolu yëpp kenn du ko laaj du ko laaj jëmale ko ci jëme yàlla ji de booy laaj jëme booy laajtee laajteel gannaaw boo xamee ne yàlla bind na jamono li xew nu mu xewee fu mu nekkoon ñu ngi koy utal ay réponse yu bare bëri ñii ngi wax big ban ñii ngi wax nangam ñii ngi wax yeneen ñii ngi wax yeneen ñii ngi wax yom gaa yooyu yëpp xéefar yu mag yooyu yëpp am nañ loo xam ne dañ ko bëgg a firee ne lii la te itam seen firi boobu am na nit ñu ci ànd ak ñoom ndax dañ koo tabax ci ay ci ay gis-gis yoo xam ne gis-gis yu nosu la gis-gis yu dëgër la yoo xam ne itam kenn mënu koo weddi ne du xam-xam waaye bu dee xam-xam itam xam-xam ñaari pàcc la am na xam-xam yoo xam ne dafay jiriñ doomu aadama am na xam-xam yoo xam ne dafay lor doomu aadama xam-xam bi lay lor ci sa pasteefu yàlla nag xam-xam boobu moo gën a jafe ci xam-xam yépp ndax bu demee ba nga xam ne génn na la mënatoo gëm yàlla mënatoo jaamu yàlla su ko defee yow kooku sànq na la ndax lan ndax li nga yaakaaroon daan ci wéeru ñàkk nga ko léegi defatoo ko bu ko defee wéet nga amatoo ku la wéttali amatoo yàlla joo jaamu amatoo yàlla joo tàllal loxo ñaan ko amatoo dara loolu boo ci àggee réer nga réer boo xam ne kenn dootu la mën a dimbale lu dul yàlla rek bu la yàlla dimbalee nag mën na la ci génn am na bu ko defee nag am na ci xéefar yoo xam ne àgg nañ foofu liñ gën a xew yépp mooy bul gëm yàlla ndax yàlla amut yàlla nekku fii lii yépp ay tombe rek la moo ko fi indi waaye du dëgg du du yoon bu leen bu leen leen leen gëm ñii di leen wax ne yàlla ñoo wax ñoom ñëpp waxuñ dëgg leen ñuy wax waxuñ ko teguñ ko fen bu leen ko gëm gëm boo boo demee nag ba nga xam ne setal nañ la ci gëm yàlla bu boobaa ci looy taxaw boo amatee soxla ci koy dem bu boobaa jumaa yi du ñuy jëriñ bu boobaa église yi du ñuy jëriñ bu boobaa synagogue yi du ñuy jëriñ amatuñ amatuñ benn njëriñ te dëgg-dëgg am nañ njëriñ ci ci ci àddina bi ndax nit bu demee ba nga xam ne buntu yëpp tëju na yaakaaratu dara mu nekk ci lëndëm lëndëmaay boo xam ne xamul amul dara lu ko ci mën a génne xelam daj dem ca jumaa ja jàpp ñaari rakka jullil yàlla loolu mu def rek dana ko génn ci coono ba ak dana ko fàtteloo sax li ko taxoon a ñëw ci jumaa ji te loolu ku nekk xam na ko ku nekk jaar na ci ku nekk yëg na ko ku nekk gis na ko de wala itam nga dem rek yàlla fajal la sa soxla bi nga ko doon ñaar loolu itam mën naa nekk mën naa nekk loolu yëpp yaa ngi koy amee ci gëm bi nga gëm yàlla boo demee bañ génn la ci gëm yàlla nag xaala yu mel noonu gaar la nooy def xamoo dara nooy def de moo tax ñoom ñuy xaru rek xaru rek ah parce que jeex na yëpp jeex na amatuñu ñu yaakaar de mu ne yàlla nag te loolu moo nekk de yàlla moo moom li nga xam ne moo yëngatu yàlla moo moom li nga xam ne moo dal te loolu rek moo nekk ci àddina bi luy yëngatu ak luy dal ak lu dal ñu ngi yëngatu eh ñu ngi julli ñu ngi oor ñu ngi yëngatu ci kaw kaw kaw kaw suuf si ci kaw barab bi di ko dugal ci biir jamono loo def ci jamono rek jeex na jamono bi markeel na la ko te doo ci jeex jamono bi markel na la ko dafay dem feneen rek waaye moom euh, jeex na xas nga ko dugal ci biir jamono moo tax ëllëg di ngay def yépp yàlla nga koy seede te yàlla dina la yàlla nga koy seede jamono nga koy seede euh, say tànk nga koy seede sa loxo nga koy seede barab bi nga ko defee mu ngi koy seede moo tax dara réerul ku foog ne def nga loo xam ne réer na sa bopp ngay nax rek waaye dara réerul de ndax yaa ngi def fi nekk nii jamono ji ñu toll waxtu wi ñu toll mu ngi ñuy seedeel mu ngi ñuy desal ci àddina ne jotaay bi fas nañ ko jàng alxuraan jokko jokko ci yàlla màggal suñu weeru yonent yàlla Muhammad ci fàttaliku alxuraan loolu yëpp moo ngi dajale ci jotaay bi loolu dugg na ci biir jamono des na fa jeex na mi ngi melni rek am sa bande enregistré denc bande bang ko enregistré denc ko moo yalla dina wax nan man ma andon ak yeen te sama malaka ngay andon ak yeen jamono bi tam ci noonu la de mu ngi and ak ñun ay malaka ya ngi and ak ñun yalla ngi bind lu malaka ya ngi bind jamono ngi portale eh, ñun tamit ñu ngi def rek mu ngi lolu mo xew bu ko defé nak li dal yalla ko mom li yëngatu yalla ko moom eh, li wacc ci adina yalla ko mom de bon ñaar rek moo moo mun am yalla ñeel na ko wala huma sakana lepp lo xamne ne na ci adina bi yalla moko mom yalla nak nag loolu tàbbi ci adina bi nak ndax da fay tagu zahiran wala da fay tabbi batinan moy ñaar ñëpp la boole de amna na wala huma sakana am nañu ko firee wala ñeel na ko na la nëbbu na mu nga xam ne doomu aadama gisu ko mu ngi nëbb ba nga xam ne doomaa dama gisu ko ñu ne loolu mooy masakana wala na mooy li nga xam ne rek gis nañ ko ci àddina mu dal kër yeeg nangam ak nangam loolu yëpp mën nañoo wax ne ne la waaye lu mën di am ay ay firi yu bëri la am de waaye li nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi di gën a waxtaanee mooy li xew rek li xew ci biir jamono loolu rek li xew ci biir jamono. ak li xew ci barab loolu foofu la ñu gisee wala huma sakana de foofu lépp lu fa jógee rek lépp lépp lépp rek la fay xew yépp yàlla moo ko fay xewal de yàlla moo lay may yëngatu yàlla moo lay may dal yàlla moo lay may yëngatu goo xam ne boo ko yëngatoo dafay des ci àddina ba ilaa yow mi diini ndax yow mi yoon yëngatu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne ngi des ba léegi ci àddina bi te bara ba mu ko liggéey woon sori na lool waaye ba tey mu ngi koy yëngal ndax lan ndax yàllaa ko santoon ne ko demal yënganu demal yëngatu de boo yëngatoo yaa ngi yëngatoo ci sama kattan ak sama doole mu dem yëngatu ci kattanam ak dooleem yëfam des de ndax wa tawakkal alal hayyi lazi laa yamuutu bu ko defee sa yëf dafay continuer rek di dem de am na yoo xam ne nag da dafay juddu rek dee loolu itam dinay am ci doomu aadama yi waaye loolu di juddu di loolu di am loolu di yëngatu loolu di dal loolu yëpp ci yàlla rek la bàyyeekoo de ndax lan fi layli wa nahaari guddeeg bëccëg li ci xew yépp ci yàlla la bàyyeekoo de te yàlla ko moom itam moom yàlla mooy aji dégg te yàlla moomu nag moom lépp li tàbbi muy tàbbi di yëngatu wala muy tàbbi di dal li tàbbi di wax li tàbbi di jëf loolu yépp yàlla moo moom moo moom moo moom kii moo moom loolu yëpp yàlla moo ko moom de te yàlla itam yàlla moom moom moom loolu mi ngi dégg li ngeen di wax de ah te itam mu ngi koy xam al alimu di aja seeni wax li ngeen di yëf de yàlla moom li ngeen di yëf ak di ko wax yépp xam na ko de boo déggee ñu ne doomu aadama dina dégg waaye yàlla itam dina dégg ndax dégg doomu aadama ak dégg yàlla benn la du benn déggi doomu aadama ak dégg yàlla la du benn bon nag yàllaa ngi dégg doomu aadamaa ngi dégg yàlla am na xam-xam doomu aadamaa am na xam-xam yàllaa ngi def doomu aadamaa ngi def loolu yëpp mi ngi am waaye da koy déggee ci kaadaru laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yàlla dara melut ni dara melut ni moom dara melut lu mel ni moom sax amut bon dara mi meloo ko de bon dégg yàlla du suñ dégg gisu yàlla du suñ gis xam-xamu yàlla du suñ xam-xam ñun xam-xam bu em dégg gu em lañu am dégg goo xam ne benn lu bu guddi eh, am na quelques kilomètres yoo xam ne rek dégg amatu fa jeex na am na quelques kilomètres yoo xam ne gis amatu fa jeex na yàlla nag moom géej eh, déggam amut guddi amut bëccëg amut jamono amut masaafa amut masaafa yépp yàlla nga koy dégg ci ci ci waxtu nga xamee ne sosu na de sa sa sa xol sa dóoru xol sa yàlla nga koy dégg sa ndokki yàlla nga koy dégg sa mawjaat mawjaat yi nga xam ne sa deret ji mawjaat yi ci nekk di yëngatu ko di ko yëngat ak yépp yëngatu booba yàlla mu ngi koy dégg te loolu lu doomu aadama mën a mën a dégg mënu koo dégg de xanaa ñu dégloo ko ay machines yi nga xam ne ñu ngi koy dégloo yàlla moom dégg na loolu yëpp moo tax mooy la man yàlla maa ngi dégg seen i jëf maa ngi dégg seeni wax maa ngi gis seen i jëf de lu tax nag mu ñuy wax loolu ne maa ngi dégg li ngeen di wax maa ngi gis li ngeen di jëf maa ngi dégg li ngeen di wax maa ngi xam li ngeen di jëf loolu lu tax mu wax la ko mooy na nga bàyyi sa xel ci sa bopp ndax li ngay wax di ko jëf maa ngi koy dégg te dinaa la ko xisaab de dinaa la ko xisaab bés te bu ma la ko xisaabee da nga jot sa pay bon nag su fekkee li ngay wax jubluwoo ci dara lu mooy am naa làmmiñ wu ma waxee rek te bëri naa wax naa wax lu neex am naa sañ bu ma neexee rek naa wax lu neex waaye da nga fàttaliku ne la raqibun atidun am ñaari malaka yo xamne ñu ngi déglu li ngay wax ñu ngi ñu koy bind de te ñu koy bind dara du rëcc de bon nak fexel say wax yi ngay wax ci sala di genn ci sala meñ fexel ba ëlëk ko lako netali do rus te buñ la koy netali nak ëlëk duñ la ko netale rek parce que dañ la koy netali waye malaka ya ngi fi taxaw safara ngi al janna ngi ni ñu lay netali la nga waxoon te bu ci nekk payam ngi ni taxaw janna ngi nii safaraangi nii mooy pay ñi nga xam ne gëmuñ yàlla de xeefar yi nga xam ne lu leen neex ñu wax de su leen neexee ñu ne yàlla amul su leen neexee ñu ne yonent du dëgg su leen neexee lu leen neex ñu wax ëllëg seen paye ngi ñëw de qul waxal leen yi ku du mu may jàpp wali muy aji di aji muy aji muy aji méngooma wala yéen mu di ku njaamu yéen xeefar yii li ngeen bëgg si man mooy da ngeen bëgguma ku dul muy sama jaamukaay loolu loolu ngeen bëgg ci man bu ko defee nag yow yonent posé leen question boobu rek te bul tontu ñoom ci boppam ñoom ci seen bopp danañ tontu te buñ tontoo sa tontu bi dina la kontaan loo de ndax danañ xam ne ku dul yàlla waruñ koo jaamu de su ko defee nga xam ne nag lii nga xamee ci ne nit ku nekk ci àddina bi ku nekk ci àddina bi war ngaa am koo méngoo ndax yàlla noonu la bindee àddina ñun ñëpp ñu méngoo ànd méngoo méngoo dimbalante méngoo yëgante méngoo fonk fonkante ndax loolu moo mooy mooy dëgg-dëggi àddina ndax su fekkoon ne méngoo boobu amut kenn ku nekk rek da ngay demal sa bopp bon àddina bi du mel ni mu mel de waaye nag àddina bi bëgg na nga xam ne nii ñëpp mu def yàlla yëpp dañoo méngoo ci kaw bëggante ndax léegi su fekkee àddina bi amul loolu borom alal a ngi fii am alal ju du jeex du xaaj ju bëree bëri ma xam ne amul dara lu ko yàqal ci àddinaam waaye mbedd mu tilim yi mënu ci dara de bu taxutoo nag balekati mbedd yi bu boobaa du mën ci mbedd mi dara ndax alalam rek la gis bu ko defee nag moom ak balekati mbedd mi ak moom gis nga méngoo jaar na seen diggante ndax kii dana ñëw liggéeyal ko moom itam dana génn ci xaalisam fay ko de naka noonu feebar mi ngi nii yaa ngi nii feebar kan moo nekk ci sa kanam nga taxaw ci kanamam mooy docteur bi docteur bi itam bu gisut feeb ku fee feebar bu mu faj xam-xamam lu muy jëriñ amul benn njëriñ moo tax yàlla mu ne ah, man yàlla maa leen bind yéen ñëpp ngeen nit ñoo xam ne da ngeen a méngoo di dimbalante seen diggante wa jaal naa baadahum fawqa baadin li yettaxida baaduhum baadan suxriya maa leen yëkkati jox leen ay daraja ci seen biir ñi am daraja ñi ñàkk daraja ngir lan ngir yéen ñëpp kenn ku nekk di liggéeyal moromam de su fekkoon ne ku nekk liggéeyal sa moromam amut ku nekk liggéeyal euh, liggéeyal sa moroom amut ku nekk sa morom ngay liggéeyal borom alal ji ki ñàkk lay liggéeyal boobu ki ñàkk kii itam moom itamit li muy liggéey daf koy liggéey kiir borom alal ji mooy bale mbedd mi su fekkee borom alal ngi nii am nga alal ju du jeex du xaaj amoo kër guy dëkk soxla nga benn maçon boo xam ne dana ñëw soxla nga benn ingénieur boo xam ne dana ñëw tabaxal la sa kër defaral la su ko defee am nga ci moom soxla moom itamit am na ci yow soxla ingénieur boobu itam su fekkee jàng na ba jeexal xam-xamu tabax te gisut kenn ku ko tabax gisut kenn kum tabaxal bu boobaa itam xam-xam bi amul njëriñ de donc bon il faut nga méngoo wa jaxal naa baadahum li baadin euh, euh, euh, wa rafanaa baadahum fawqa baadin suxriya ma yëkkati naa ñenn ci ñenn ñuy dimbalante ñu ku nekk jàppee sa morom ne sama baara njini nga ku nekk dafa jàppee moromam ne bala ñii di nga de borom alal ji bala ñii ni kii kii bale mbedd mi la kii bale mbedd mi bala yi ni borom alal ji la docteur bi bala ñii ni ki feebar la ki feebar bala ñii ni ki ki ki ki docteur bi la su ko defee noonu la àddina demee de sëriñ bii di jàngale itam bala ñii ni ñi muy jàngal la ñoom tamit bala yi ni sëriñ bi lañ de ñun ñëpp ñoo bokk rek ku nekk ngi sotti kii ngi sottee jël kii ngi sottee joxe te noonu la yàlla bindee àddina bi ñii dañuy joxe ñii di jël <coughs> lu dul nag foo fekk nag am na loo xam ne moom exceptionnel la <coughs> am na ci nit ñi ñoo ñu bëree bëri ñoo xam ne uute nañ ay jikko de am na ñu amee jikko yu xat am na ji amee ñu jikko yu yaatu am na jikko yoo xam ne mer yomba mer gaaw xeex gaaw kurpeñ nit dóor ko moom nga yaakaar ne mooy ngóor mooy mat loolu yëpp maay maay borom doole ji am na ñoo xam ne itam seen xel nekkut foofu ñoom seen xel ñu ngi ko jiital rek ci loo xam ne ci la événal nekk waaye waxuma borom xel yu xut yooyu de waa ji ne ko tëyi pes mu ne ko boo ñaareel du ma fayeeku a ah, booba ñaareel woon itam du ma fayeeku de ndax ragal foog na ne bu ñaareelee rek xeex bi du ma nangu de ah, su ko defee nag fekkee loolu mooy mooy yàlla mooy ki nga xam ne moom lañ war a méngoo booy méngoo méngoowal koo xam ne mënal na la dara ki ngay méngoo mu mënal la dara kooku mooy yàlla ndax li ngay soxla yépp yàlla rek nga ko mën a amee te doo joxe dara lu mooy rek gëm naa yàlla doyloo naa yàlla li ma yàlla sant maa ngi ci kooku rek ngay méngoo te doo joxe dara waaye yi ci des boo méngoo ak ñoom joxante rek am indi rek la <clears throat> marché la rek addina bi yëpp marché rek la am indi am indi rek moo fi nekk su ko defee nag am na koo xam ne nag dangay ngay jël rek te te doo joxe dara de te mooy yàlla eh, mooy yàlla ci màggam de bon nag bu may méngoo naam méngoo koo xam ne am na xam-xam naam méngoo koo xam ne am na daraja naam méngoo koo xam ne am na yërmaane naam méngoo koo xam ne mën na ko naam méngoo koo xam ne mën na na ko te xam na ko te mën na koo def de méngoo kooku moo gën méngoo mi def moo xam ne lum kawe kawe kawe lum baax baax itam balaa ànd ak rek kenn dootu ko déggati dee na keneen ñëw na toog palaasam moom itamit balaa yàgg rek mu dem keneen ñëw toog palaasam su ko defee bu kenn aju ci kenn ñëpp nañ aju ci yàlla dimbalante ci yàlla su ko defee ku fi nekk bu demit ku fi nekk bu demee itam du ngeen wéet kenn du wéet ndax yàlla moo fi nekkoon ak ñun tey moo fi nekkoon ak ñun démb yàlla jooju moo fi nekk ba tey te du fi jógee ba nag méngoo booy méngoo ak nit méngoo la moom ngir yàlla boo demee xam ne wal wal muuminaat baaduhum awliyaau baadin jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen yi ñoom ñëpp dañoo méngoo wante ci seen diggante du méngoo man maa la gën wala man maa la gën a kawe wala man maa la gën a baax méngoo wala man maa la du méngoo itam man aw ma dara damaa bëgg rek ñëw nga dimbale ma ngir yàlla ndax ñun yow lay yaakaar yaay su yooyu yëpp du méngoo loolu yëpp du méngoo méngoo yëpp mooy méngoo ngir yàlla méngoo daraja méngoo kattan yen ñep ngeen bokku ne yéen ko mom ndax ku nek soxla na moromam ni ko waxe sank ah borom borom comme ni ko waxe sank borom alal ji lim soxla lim lim am am alal soxla na ku yow diko balel baleel mbeddam ak kërëm ak yooyu yëpp de te kooku itam bo demé la muy def mu ngi koy def ci kaw ngoram mu koy def ci kaw yëkkatikoom de loolu yëpp mom la yalla wax waaye nag gën ji mengo moy mengo ak yalla comme ni ko ci alquran wal mu'minuna wal mu'minati baaduhum awliyaau baadin loolu mooy dëgg de yàlla wax na ci yonte annabiyu awlaa bil muminina moo gën a xeeyoo méngoo mbiri julli ñi de yonent loolu loolu itam yàlla may na ko yonente de may na leen ñi nga xam ne dañoo méngoog yàlla mu ne ñooñu itam yàllaa ngi yàllaa ngi leen méngoo de waaye xeefar yi ñoom la anal kafirina baaduhum ah wa anal kafirina la mawla ñi nga xam ne xeefar lañ gëmuñ yàlla ñooñu méngoowu ñoo kenn seen bopp ak seen bakkan ak li yaakaar ne moo leen di taxawal rek loolu mooy seen ittee ba bëccëg ci la ñuy daw de te loolu itam fekkee amal na leen njëriñ du njëriñ boo xam ne njëriñ bu sax la waaye booy méngoo méngoo koo xam ne njëriñ bi mu lay defal dafay sax ba nga yóbbu la ba yóbbu la firdawsi de yàlla ñu ko yàlla defal mu ne da ngeen may sant nag ma méngoo koo xam ne ku dul yàlla la di ko jaamu loolu duma ko def de yàlla moomu nga xam ne moo jara méngoo mooy kan mooy faatiru samaawaati yàlla moo bind asamaani juróom-ñaar wal ardi moo bind suufi juróom-ñaar rek yàlla moo bind asamaan moo bind ju moo bind suuf bind gim ko bind bindu ko ndax bindu bindu misaal xool royewu ko ci kenn gisewu ko fenn moom rek yàlla moo ko fent ci xam-xamam moo tax mu ne faatari samaawaati faatara shay'a mooy fent na ko loo xam ne yaa ko fent dimbale kenn gisoo kenn koy roy li gisoo kenn koy xool amul kenn ku la ko dicté ne la defal nii wa maa kuntu muttaxidal mudilliina adudan bés ba may pare pour bind jàppuma kenn mu di ma dimbale man yàlla rek maa ko defal sama bopp bon nag nga yàlla mi nga xam ne moo moo bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ak li nekk ci seen diggante ñeel doomu aadama ci ay xéewal ki ay maya ki ay nattu yooyu yëpp yàlla moo ko def ci àddina bi ngir dimbalee ko doomu aadama kon kay booy méngoo méngoo la kooku nga xam ne mën na loolu de waaye koo xam ne mënul dara boo méngoo moom da ngay tardé sa bopp rek boobu moom yàlla moomu yutule mu dana mu wërsëgal dana mu lexal wala yu te deefut te deefut wërsëgal ko de yàlla moomu mooy ki nga xam ne yow loo am ci jàmm bi loo am ci yàlla ci yàlla la bàyyee te yàlla moomu kenn ko jox dara moom dafay joxe rek waaye du jël moo tax lu muy jël ci yow mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni xam neen rek ne may seen borom man rek maa eeyoo ngeen jaamu ngeen jaamu ma keneen ku man eeyoo ko de bu ngeen nangoo loolu ba maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimuni inna war a razaqu zul quwwatil matin yàlla moo mën a maye yàlla mooy wërsëgal yàlla mooy dundal yàlla moo amee wërsëgu doomu adama yépp su ko defee nag yàlla moomu yàlla moomu moo jara méngóo de koo xam ne moo lay wërsëgal boo soxlaa te moom xaa xaaru leen ngeen defal ko dara kooku moo jara jaamu de ndax wërsëg ak am na solo ci ci dundu doomu aadama te doomu aadama joo gis nag am na wërsëg kenn ku nekk nag ak nu wërsëg ak nu wërsëgam toll de am na yoo xam ne am na wërsëg fees àddina bi lool am na ñoo xam ne amuñ sax lu leen doy pour ñu pour ñu taxawal seen dund waaye boo demee ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk lu ñuy gañ ñoo bokk lu ñuy añ ñoo bokk lu ñuy def ci bëccëg bi suba bëccëgee kenn ku nekk ci ñoom da nga bëgg a añ ñëpp ñëpp danañ añ miskin dana añ borom alal ji dana añ ak ñeneen ñi ki nga xam ne yaay jébbalu ci xeetu yonent yàlla ci sa xeet moo njëkk a jébbalu de waaye njëkk ko yonent yàlla Ibrahima jébbaloon wax na wax na aslamtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan yonent yàlla Yaqub moom tamit jébbaloon yonent yàlla Yusufa ñoom ñëpp wax nañ ne yow yàlla yàlla nag ñu rey fekk jébbalu nañ ci lislaam lislaam mooy benn diine bi nga xam ne yonent ci la nekk su fekkee wax nañ ne diine benn la te mooy lislaam moy diine bi nga xamne ci la yonent yep nek te yonent ala Muhammad ñëw nek khatamu anbiya yoy moy tamit ci islam la nekkon motax ñu wax ne diine ben la ben diine la ci biir diine ñek ñiko top am na ñoo xamne soppi nañ soppi def ni soppi def ni yahudi soppi nañ chrétien yi soppi nañ julli ñi ñom li tax ñoo soppi seen diine moy inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu ñoom seen diine mënuñ koo soppi ndax yàlla ko wàcce te moo koy garde su ko defee suñ seen diine mënuñ koo soppi ndax benn benn benn benn boo demee lislaam bari na ay kuréel kuréel kuréel yu bëri yu ci nekk am na ay chia am na ay sunna am na ay maturidiya am na euh, euh, euh, sunna wal jamaa ak ak yu baree bari yu bëree bëri ñu ci biir lislaam ñoo xam ne ku ci nekk dangaa gis am sa groupe bopp am sa gis-gisu boobu boo xam ne aju na ci lislaam boo ñëwee ci senegaal am na Tijaan am na Murid am na Xaadiriya am na Laayeen yooyu yëpp kenn ku ci nekk sa gis-gis boo gisee lislaam moom ngay bëgg a firi waaye li nga xam ne nag moo leen lal moom ñoom ñëpp ñoo ci ànd kenn werentewu ci kenn laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoom ñëpp foofu rek lañ nekk kenn génnu ci kenn kenn kenn génnu ci kenn yemewu ci génn kenn xelaatul jëmee fa xalaat bi yëpp mooy après laa ilaha illallah muhammadu rasulullah après nag ku nekk nag nooy firee nooy déggee nooy gisee te ku nekk am nga ci droit yonente nee na man ijtahada wa asaaba fa lahu ajraan wa man axtaa fa lahu ajrun waaxidun ñoom ñëpp mujtahiduuna lañ kenn ku nekk yaakaar nga ne nii ma gisee moo gën a dëppoo ak ni nga xam ne moom la yàlla bëgg ci man su ko defee boo ko defee sa dëgg la sa liberté la mën nga koo def waaye mën nga koo def ndax dogg nga ko ci sa xol waaye nag amoo droit ku nekkul ci li ma nekk nekkul ci dëgg loolu moom jullit waru ko wax ci diineem ndax diine diine bi ñu yeew ñun ñëpp nga xam ne gëm nañ ko ñun ñëpp ñu ànd ci ñun ñëpp ñu ngi ci kenn ci ñun génn génnul ci génnul ci loolu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah xam si hajju baytillahi alxaram na nga loolu yëpp ñoo ci bokk werante wuñ ko de boo demee ci chia sunna yeeg ñëpp boo demee loolu yëpp ñoo ko bokk ko waaye yeneen yuy werante nag werante ay politique la question politique la waaye du question diine de seen werante yëpp du werante diine question politique rek la buur bi ñëw na façon bi la bu ko faloo li koy fal bu faloo li muy wax rek jeex na moom la moom la nit ñuy wax <coughs> waaye du waaye dootul diine bu boobaa de mu ne moo tax jébbalul jébbalul yàlla jébbalul yàlla <coughs> yonent moo njëkk a jébbalul yàlla ci xeet wi de mu ne bu ko defee nag ñun ñëpp li ñu war mooy jébbalu jëm ci yàlla wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun ku jébbal sa sa jëmm jëmee ko ci yàlla kooku mooy ki nga xam ne rafetal na de moom la yàlla wax mooy ki nga xam ne rafetal na de wala takunanna waaye bu leen nekk minal mushrikiina di bokk ci way bokkaale ñe de waaye yéen xéefari màkke yii yonent di wax ak yéen génne leen ci bokkaale ak yàlla ndax amalu leen njëriñ amalu leen njëriñ fii ci àddina amalu leen njëriñ ci àllaaxira de loolu mooy risale yonent yëpp oo nit ñi génne leen ci bokkaale yàlla yóbbu leen ci taw tawxiidu yàlla boo demee alxuraan wàcc na ci ñaari ñaari barab yi gën a siiw bi ngi wàcc màkka li ngi wàcc màkka li ngi wàcc madina su munawwar li wàcc màkka lu ko taxoon a wàcc mooy préparer nit ñi ñu gëm yàlla préparer nit ñi ñu gëm yàlla préparer nit ñi ñu xam ne yàlla mii ñu gëm dina am lu mu leen sant dina am lu mu leen mës a sant dina am lu mu sa teg su ko defee nag ci màkka yonente ngi oo nit ñi waa màkka yi jilaa tawxidillah lépp lu leen di gëm gëmloo yàlla lépp lu leen di nanga nanguloo waxdaaniyatullaahi bàyyi xërëm yi ñu daan jaamu bàyyi nit ñi daan jaamu jaamu yàlla rek loolu la loolu loolu la nekkee woon màkka fekk nit ñi miin nañ jaamu këram miin boo xam ne tëb rek bàyyi ko dina jafe ci ñoom lu dul du ku yàlla namal ci moom yiw bu ko defee ñi nga xam ne nag yàlla namal nañ ak ci ñoom yiw ñoom gaaw nañoo jébbalu gaaw nañoo nangu yonent yàlla Muhammad ba mu demee màkka ba mu demee Medina nag foofu la lista eh, alquran yi nga xam ne dafay indi ay toggeef ndax ña nekkoon màkka ñu oo leen bañ gëm ko ak ñu ñëw fii tam Medina léegi nangu nañ ne kii nga xam ne moo eyoo lii moo eyoo wéet mooy nangam ak nangam kooku itam am na xàq togg jaamam yi du ko neex mu moo tax ma dina fa la toggee fi commencé ñëw ci nit ñi toggaa fi julleeg toggee fi koor ak toggee fi asakaak yooyu yëpp mari na dañ ko yoonalee waaye màkk moom la fa nekkoon yëpp mooy oo nit ñi rek ñu jëm ci tawxidullahi tabaraka wa taala mu ne moo tax mu ne bu leen nekk ci mushriki bu leen bokk ci kii mushrikina yi de kul waxal ne inni naka man axaafu dana ma ragal ina saytu ndem mooy na ma rabbi borom sama dama ragal bu ma ragalee bu ma moyee yàlla ci jaamu ku dul moom azaba yawmin mbugalam bés azimin mu daaji màgg de te mooy bés penc de dama ragal ne bu ma moyee dama ragal mooy yàlla dama ragal ne bu ma moyee yàlla ëllëg yàlla dana ma mosal mbugal moo xam ne mbugal mu métti la de bon nag boo buggee daw mbugalam yàlla dawal mooy yàlla gis nga mooy mba mbugal mi mu ngi ko aj ci lan mu ngi ko aj ci mooy yàlla su ko defee bon boo mooyut yàlla bon doo gis mbugal boo gisee mbugal nag na nga xam ne yow yaa mooy yàlla waaye ragal naa mooy yàlla ndax ëllëg yàlla du duma mbugal yonent mooy wax loolu daf koy wax rek pour jàngal ñi ñun ñu wax ko ñu ñu xam ne noonu la demee waaye yonent moom ku ne xam ne du mooy yàlla ndax maasumun al bi maasumun duñ mooy yàlla su fekkee yàlla ngi wax ak yonent eh, eh, afallahu anka li ma azinta lahum yow yonent lu tax nga leen di wax lii loolu yonent nga ne am na ñoo xam ne dañ ciy dëgg ne yonent yi dañ daañ mooy kay parce que moo tax yàlla wax yonent ne ko afallahu anka parce que ku defut bàkkaat kenn du ko baal ñu ne bon yonent def daan mooy waaye fekk yooyu yëpp <clears throat> seen façon ñàkk dégg arab la dégg nañ baat bi rek waaye gis ne làng bala nga koo dégg dégg dégg dëgg dëgg xam ko il faut nga xam tradition société bi làkk-làkk boobu il faut nga xam ay ay ay ay léebam il faut nga xam façon ngi kàllam il faut nga xam façon ngi waxam bu baax a baax a baax ndax bu alxuraan boo boo déggee alxuraan bu wax wala boo déggee français bu wax wala boo déggee olof bu wax di nga xam ne yow mi nga xam ne doon nga ko di nga xam bi muy wax comme maag suma naari gànnaar bi mu ne ma yéen yéen Sénégal xanaa yéen waxtu wu nekk da ngeen di tëdd rek tëdd rek mu ne rajo bi toujours yow yéen Sénégal bu tëdd bi yéen Sénégal bu tëdd bi ma ne ko du tëdd tedd la tedd ak tëdd du benn waaye moom noonu la dégg woon def foog ne tëdd tëdd rek la bu ko defee lu mu dégg dégg olof am na loo xam ne raw na ko ci olof ndax du du du mooy du mooy deretam du mooy nàmpam du mooy loolu su ko defee itam su fekkee déggoo arab em ci ñàng noonu rek da ngay gis ne itam jàngoo dara de mu ngi mel ni waa ñu doon wax démb mu ne yàlla santul góor ñi ñu aj màkka jigéen ñi rek ah santul jigéen ñi ñu aj màkka góor ñi rek la sant ñu aj màkka loolu itam boo ko waxee boo rek mooy ne waa dafa bëgg te docteur la wax docteur fulaan dem na ba am doctorat ci université yi ci université yu gën mag yi waaye déggul arab déggul arab de te arab lay wax mu ne yàlla santul jigéen ñi ñu aj góor ñi rek la sant ñu aj fu ko aj mu ne wa azin fi nnaasi bil hajji yaatuuka rijaalan rijaalan boobu moo ko nax moo tax mu foog ne rijaalan rek lañ sant ñu aji màkka waaye xamul ne rijaalan mooy ñuy dox ci seen tànk rek mooy mooy ñuy dox rek su ko defee loolu yëpp boo xamut boo xamut euh, génie langue bi boo xamut génie langue bi boo xamut euh, euh, ruq-ruq yi littéraire littérature yi ak léeb yi ak nangam ak nangam xam tradition nit ñi loo dégg doo dégg dégg langue boo xamut yooyu dina am ruq yoo xam ne àggoo fa de dina am ruq yoo xam ne xamoo ko de moo tax mu ne man ragal naa yàlla bu ma ndax bu ma ko mayee daf may mbugal kon nag boo mooyee xamal ne ci la mbugal di aju boo mooyut nag mbugal du ci aju de lu dul lu dul soob yàlla de lu dul loo xam ne soob na yàlla de man yusraf ku soppeef na anhu ci moom yawmal qiyaamati ma izin bi sab keroog faqad rahimahu yoroon na mu mbugal moomu nag buy ñëw xam nga mi ngi mel ni boo tegee acier yooyu di xëcc weñ mu naka noonu nit bu taxawee ci kanam mbugal moom bu ñëwee dafa mel ni nit ki mooy xëcc mbugal mi mu ñëw ci moom nit nit ki mooy xëcc mbugal mi mu ñëw ci moom su ko defee waxtu nga xam ne nit ki nekkam mooy xëcc mbugal ñëw ci moom boo amul lu soppi mbugal moomu wala si du agsi ci yow wala yow amul lu la soppi wala si mbugal mi du agsi ci yow boo am mbugal mi mën naa agsi ci yow bu boba nak lan mo lay mussel ci mbugal moomu nga xamne dafa dafa jog ak naram jëm si xew ah, ah ah dafa nak jëm si xew de mu ne mbugal ku ko soppi ba nga xamne aksi wu ci yow mu ne loolu rek moy bés a taxé de waye bo amul ku la soppi mbugal moomu bam tabbi ci sa kaw da nga xamne lolu yépp yow ya ko olon sa bop jëf jing doon jëf ci adina moy mi ngi da nga taxaw ci kanam weñ yooyu di jàpp seen moromu weñ yi assi assi lañ ko wax mi ngi mel ni acier yaay jëf-jëf yoo xam ne sa bopp dafa mujj nekk benn acier boo xam ne dafay xëcc safara ci yow de su ko defee nag boo amul lépp loo xam ne dana la soppi walis mu wal moomu agsi ci sa kaw bu waa na nga xam ne perte nga de waaye nag koo xam ne yàlla soppi na mbugal moomu mu jëm ci kawam mu nag faqat rahimahu yërëm na ko de kooku yàlla yërëm na ko de wa zalika loolu alfawz moom ak a texe alazim mu biinu ko da aji bidde texe daal dëgg dëgg dëgg mooy texe ëllëg alaxira de loo mën ci mel foo mën ci àgg loo mën ci doon lu àddina bi mel ak yow neex ak yow def lay buur def la ay sang di la jiital mu neex ci yow lool waaye feeg muccuwaay ba àgg agoo ca rek muccagoo de moo tax yàlla mu ne keroog kooku koo xam ne mucc nga faqad rahimahu yàlla yërëm na ko وذلك لولا الفوز ما مدة تخي المبين ولا يم بدء فورك لا تخي نكر يلا مومنك لا خمن يو يب شلو خمن نك بند الله سمان بند الله سوف لا نك تيجين تاس سمان سوف يو يب مماي لكو نلا نك من من سما من سما جامبي يوم مالا بند من مالا خم كيف كو خمن ليجين غدارا ماشيني بودي ما يدين ليجين يب دفن ينوتيك ها نن نيرين كوي دفعي نيجي دفعي نيجي دفعي نيجي دفعي ngir xaat ko ci yàqu boo demee yàlla bi bind nit ki itam nee na ko defee nii defee nii defee nii moom itam mooy nit bi nga xam ne boo ci jaaroo dara du yàqu yépp dina baax waaye boo ci jaarul nag lu yàqu du ko gis ku la ko rappaaral de c'est fini yàqu na jeex na mu ne naka noonu itam yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf bindal la yépp def la fi nga nekk buur ci lim bind yépp def la doomu aadama yow ngay buur dara tiimu la dara farewu la kaw yalla mi la bind rek mo la faré kaw mune bo ñewé nak ba nga xamné sagane nga sa bop ba nga xamné lu ñew rek tim la sa bakkan tim la bëgg sa banexi bakkan tim la bëgg sa bop tim la bëgg lu nekk tim la lu nekk rek nga gis né moom mo la gën sa bakkan la gën parce que dang ko wara top sa banex mo la gën parce que dang ko ndax bon war nga ko top sa sa def yu yu jubadi mo la gën moo tax nga par force nga topp ko waaye boo gisee ne yow yaa gën yooyu yëpp yow yaa gën a kawe yooyu yëpp bu ko defee yooyu yoo lay mujj topp de ñoo lay mujj topp dana waaye nee na nekkoon naa fi di ndawal iblis di ko jaamu waaye damaa dem ak ba nga xam ne léegi iblis takk naa ko mu doon sama jaam de dem naa ban noot iblis léegi maa ko mën maa mën maa koy jaarale fu ma neex de maanaam rëcc naa sama bakkan rëcc naa samay bànneex rëcc naa lépp loo xam ne daf ma daan soxlaal walis gis yàlla walis nekk walis nekk yàlla yooyu yëpp romb naa ko de bon nag dama dama balaa mucc rek fo bata mu àggee foofa moo tax yàlla mu ne wa daalika loolu de al fawzu mu biinu ko daal ji sa kalaahu neem jot na la yàlla bi durin ci lor lu demee ni ki feebar lu demee ni ñàkk mu ne fala kaasifa déet aji huññi ah, lahu ci moom illaa huwa ndare moom de yàlla mu ne bu la lor jotee lor mooy lan mooy loo xam ne bu la dalee rek ngay door a yëg ne ah ndeke loolu ndeke noonu la woon yéen ñëpp yéen ngi xoot xool seen bët yaa ngi ci jàmm ba fàtte ngeen ne am ngeen bët fàtte ngeen ne am ngeen bët fàtte nañ ne am nañ bët waaye bu ci dara ne topp rek léegi nga xam ne fàttaliku nga ne am nga bët de su ko defee docteur bi tuufaay di nangam ak nangam ngay door a xam ne am nga bët léegi tey sa bopp bi dara dalu ci nga taw ba mu yàgg rek bopp bi yëngatu ngay door a xam ne am nga bopp de ndax feebar bi lor googu ñëw ci moo soppi na la walis na nga xam ne moom nga doon yëg yëgoo ko su ko defee nag lor ya, ñàkk na ya, bokk na ci loolu am xaalis am am sa yëpp muy dox normalement nga dem ba mu yàgg rek gisa gisagoo gisatoo ci dara ngay door a xam ne nekkete xaalis amoon na njëriñ de su ko defee loolu mooy lor lor mooy lépp loo xam ne jëlee na la ci benn situation yóbbu la ci beneen situation boo xam ne bu la loolu dalutoon doo xam ne situation boobu am na doo doo yëg ne sa bët yaa ngi xool waaye fa dem nga ba nga xam ne fàtte nga fàtte nga ko ndax dara yaa ngi ci jàmm yëg mu ngi ci jàmm nopp yaa ngi ci jàmm bopp baa ngi ci jàmm yépp a ngi ci jàmm su ko defee da ngay fàtte ne am nga cër yooyu waaye bu ci dara ne kokk rek nga door a fàttaliku ne ah sama nopp sama bët yi sama bopp bi sama tànk yi ngay door a fàttaliku am nga yooyu am na yoo xam ne itam lor lor am na ci nga xam ne sa moromu nit mi ngi nekk fii yéen ñaar yéen a ngi nekk ci jàmm ci jàmm ci jàmm ci jàmm ba benn bés rek nga gis ne kële am na coppite woo xam ne yow amoo ko su fekkee sa bakkan mënu koo muñ sa bakkan attanu la bu ko defee ngay nar lu tax kii di am lii taman aw ma ko lu tax nangam ak nangam lu tax kii lu ma gënee kii ma fekk yëf yi nekkul ci gënee rek nekkul ci juddu ci yàlla la nekk waaye yàlla yàlla mooy def ko neex yàlla mooy mayal ko neex de mu ne te loolu ah wa in yamsaska falaa kaashifa lahu wa in yamsaska laal jot na mu la bi xayrin ci xiiw lu demee ni ki wërsëg lu demee ni ki ak wërsëg foo mun qadiroon a jàttal la moom ala kulli shay'in ci lépp lëf de boo nekkee ci dur boo nekkee ci dur ngay door a ne xinaa ak wér am na soo nekkee ci wéradi ngay door a xam ne wér am na fekk yaa ngi wér rekk xamoo feebar mooy lan waaye boo feebaree rek ngay door a xam wér mooy lan de su ko defee eh, boo boo ñàkkee ngay door xam ki nekk ci ci nekk ci ki xam lu xam bi ngay door xam ne am na ko am am na de te naka noonu noonu rek loo loo loo loo loo amul rek yëgoo boo amul feebar doo yëg feebar waaye boo feebaree rek doo la xam ki wér li mu mel de boo gisee yow yaa ngi tëdd sa borom yaa ngi catang catang yëgu ko génn yow mënoo ci dara ngay door a xam ne lii la jëriñ lii la lii la ñàkk feebar lii la wér di jëriñ de foofu foofu moom xajul naa jaasal na moo laa ko seen ci lépp la foofu moom yàlla alxaayiru mooy aji xattanu de yàlla mooy borom kattan fawqa ibaadihi not na mu ay jaamam de yàlla moo am kàttan kattan loo xam ne jaamam yëpp yëpp not na leen te lu ko neex rek lay defee lay defee jaamam yooyu nga xam ne not na mu leen de yàlla moo not ñëpp yàlla moo not ñàkk indi am yàlla moo not dund indi dee yàlla moo not dee indi dund yàlla moo not ku am ci kaw ku amut yàlla moo not ci yàlla moo not miskin fakir ku amut soppi ko muy ku am yàlla mooy not koo xam ne am na mu soppi ko muy muy loolu yëpp yàlla moo koy def de moo tax mu ne yàlla borom kàttan la te noot na jaamam yëpp ku ci nekk rek not na la fa nga nekk ba nga xam ne la nga lam bëgg moom yàlla ci yow rek mooy am de su ko defee e, yàlla amal na jëlee ci ñàkk noot na ñàkk indi am noot na am itam indi dee noot na wér indi feebar noot na feebar indi wér e, e, noot na xam indi ñàkk noot na ñàkk indi feebar lu nekk rek noot na bëccëg indi guddi noot noot na guddi indi bëccëg loolu yëpp yàlla moo ko def de yàlla moom mu ne mu ne moo tax yàlla moom mu ngi ci kaw jaamam yëpp moo leen tiim ñoom ñëpp te dara merut te dara farewut ni moom de bul waxal ne yow yonent sallallahu alayhi wa sallam eh, ah waxu moom alxakiim mooy aji xereñ ci njëfteefam alxabir mooy aji xam baati ni mbir seen yàlla moomu mel noonu nag mooy ki nga xam ne xam na seen mbir yëpp seen ci xam na xam nañ seen yépp lépp lu ngeen nekk rekk yàlla xam na ko xam na baatin xam na zahir xam na baatin ni mu xamee seen zahir su ko defee lu nekk rek bu boobaa boo koy teg danga koy teg ci kaw xam-xam yàlla xam na doomu aadama yi xam na lim soxla xam na ni mu war a mel loolu yépp yàlla xam na ko moo tax buy defal doomu aadama daf koy defal rek danga mu ko war a defalee de kon waxal ne <clears throat> ñeel yéefar yi ay na la lef akbaru moo gën a màgg shahaadatan ci seede boo xam ne dana leen dëggal soppi leen ci li ngeen nekk yóbbu leen ci dëgg de mu ne yàlla wax ne ne xul ayu shay'in lan la ay ana lan lëf akbaru moo gën a màgg shahaadatan ci seede de boo koy wax xul bi yàlla boole na ko ci rek waaye bokku ci li xul bi làmboo rek loolu lañ soxla ayu shay'in akbaru shahaadatan lan moo gën a màgg kan moo gën a màgg seede lan moo gën a màgg seede ci yi nga xam ne euh, mën naa soppi doomu aadama jëlee ko ci lii yóbbu ko ci lii fekkee ñoom waxuñ ko laaj nga leen ko ñoom bañ nañ ko wax wul waxal ne allahu yàlla shahidun mooy aji seede bay nii diggante sama boo bay na ko maag diggante seen wax leen ne yàlla moom mooy seede sama diggante ak yéen de woo waxee wax yoof na ilayee jëm si man haazal quraan jile al quraan li usirakum ngir na ma ragal loo leen bii bii ci moom de yalla mo wacc ci man alquran ji ngir ma ragal loo len ma waat leen ragal loo leen xalaatira xamem loo leen aljana re woo ma woo man balaa ak a jot ko ak kep ko xamne ne alxuraan jot ko itam na melni yonent taxaw di wax ak mom de ku alquran ak ci sew rek xamane yonent taxaw ak yow dila wat bu ko defee nga nangu bu la yalla dimbalé nga nangu bu la yàlla nga bolé ko ci lib rek ne asatur la wali la wala woo man balaa ak jot na mu julit bo xamne jot na génn jot na ba génn te ba mat mukallaf rek na xamne alquran nga wax ak moom de waman bala ak ak gént na mu wala man balaxa ak jot na ko alquran ay nakum yéen tashaduna da ngeen sede na annama laahi naka aji nekk la ñaar yalla alihatun ay yalla uxra yenen amo yen xéefar yi ëllëg ñeme ngeen taxaw di wax ne am na yeneen yàlla ju dul yàlla ñeme ngeen a seede loolu bu ngeen ko ñemee ñemewu leen ko seede te du ngeen ko seede de ndax bu demee ba ca kanam yàlla yàlla def naan leen ana yow ana seen yàlla yi ngeen doon wax lañuy wax màkku naana abuduhum wallahi wallahi màkku naana abuduhum dañ ne wallahi jaamu ñu moon la ñun jaamu ñu leen ay këram ñun yow rek lañ doon jaamu de waay bu fekkee ñoom ngeen seede loolu man yàlla maa ngi sedde ne ah ñoom buy seede loolu yow waxal ne innama allahu innama huwa nag moom ilaahun yàlla la waahidun yu jenn wax leen na la way na nii naka man yonent sallallahu alayhi wa sallam <coughs> bari un aji dañ laa mimmaa tushrikuuna ci da ngeen bokkaale foog yàlla de man de li ngeen di yàlla man bokkuma ci de bokkaale wu ma yàlla tey bokkaale wu ma yàlla ëllëg yàlla kenn la moo moom moo bind <coughs> te kenn dimbalewu ko ci lam def de alladina ñaaña aataynaahum jox nañ leen alkitaaba tawraat ak injiil yaa def wu na dañu xam yonent ñi nga xam ne tawraat wàcc na ci ñoom ak linjiil jàng nañ ba xam yonent xam-xam boo xam ne xam-xam bu mat sëkk ndax lan mooy xam-xam boo xam ne <clears throat> yaarifuunahu danañu xam ko kama yaarifuuna nag ñu naa abnaahum ay doom seen yu góor de ñoom xeefar yi jàng tawrat ak injiil xam nañ yonent ni ñu xamee seen doom yu góor yi de foofu ñoom laa yoomi noonu gëm ci ñu dañoo bañ a gëm rek waaye xam nañ ne yonent dëgg de moo tax abdullah ibnu salaam ah, ah, moo tax abdullah lazina ñaa ña xasru perte nañu am sumay ay bakkan seen ay bopp seen ëllëg ci àllaaxira foofu ñoom laa yu ñu gëm ci ñu de ñoom xam nañ yonent ni ñu ko war a xamee dëgg-dëgg waaye nag gannaaw ñoom dañoo xalaku rek fii ci àddina te dëgg mu ne ñooñu duñ gëm yonent de abdullah ibnu salaam bi mu ko gisee ne kii laa gën a xam kii laa gën a xam ci sama doom ndax sama doom xaw ma yaayam uruj na ma ci moom wala déet waaye kii moom boo ko gisee rek da nga xam ne kii la yàlla doon wax ci alquran de wa man azlamu déet kenn di gën a tooñ mi man iftara ci ka dund moo la laay wala yàlla kasiban ay nar kenn ku gën a tooñ ci nit ñëpp mooy yàlla di wax ne am na bokkaale de aw mu weddi bi ayaat yi ci alquran sama wala mu weddi alquran ci nga xam ne yàlla koy wàcce de innahu na kon luy mbir tey mbir laa yuflihu texe ki dal zalimuna way tooñ de mu ne ñi gën a tooñ ñëpp mooy ñi wax naan yàlla dafa am bokkaale ñii gën a tooñ yépp ñooy ñi nga xam ne alxuraan laaj na ci ñoom te gëmuñ ko di ko weddi mu ne ñooñu ah yàlla mu ne ñooñu duñ texe de ëllëg àllaaxira duñ bokk ci ñuy texe de wa yawma nahshuruhum jàngal bésab pang seen jami'an mbir mu ñuy mboole de bés ba nga xam ne allah xeer àddina jeex na yàlla jeexal na àddina màbb na suuf si asamaan si xotteeku na biddi yi toj nañ daanu lu nekk tasaaroo na mu ne bés boobu ngi ñëw de bu boobaa nag man yàlla dinaa leen fang ñoom ñëpp ci benn pàkk ñoom ñëpp danaa wax ak ñoom de yaa su ma naqul topp ñuy wax di la zina ñeel ñaañaa soo ko bokkaale woon nañu yàlla ñi nga xam ne dañ doon bokkaale ak yàlla yàlla taxawal leen laaj leen ay na surakaaya anay bokkaale sama la zina ñaaña kuntum nekkoon ngeen tasumuna dine ana ñi nga xam ne ñoom ngeen doon wax ne ay samay bokkaale lañ ay yàlla ni ma anañu su ma dem ta su ma dem topp nekk fitnatuhum lay seen fitnatuhum ay lay seen illa an qaalu dara wax seen wallahi wallahi rabbina wallahi nga ñeel yàlla rabbina kay borom sunu ma maa kunna nekkoon fi kene way bokkaale seen fen gu njëkk googu ëllëg àllaaxira de bu leen yàlla taxawalee ne ana bokkaale ka jigéen mu doon boole di jaamu li ñuy wax ñoom ñëpp ne wallahi rabbina ma kunna mushrikina yow yàlla ñun musuñoo bokkaale kenn bu buur ne unzur seetal yow muhammad kayfa kadabu naka la ñu fene ala anfusihim wala lay bakkan seen seet leen nag ak seen fen yi ñoom xéefar yi waddalla fàdduna anhum walis leen maakaanu la ñu nekkoon yaftaruuna di duut ko de allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim